ay galaaj ndax gën a am mu gën a yomb gën a am sécurité kon mbir mi ay nelaw a ngi ci biir même as as kii euh, asrar bi ñuy bind noonu côté jinne la rek loolu araf yi ci alxuraan lañ koy jëlee mais nañ ko composé du noonu loolu yëpp da ngeen ko war a xam gis nga doomu adama bu fekkee takkuloo naanuloo diwuloo raayuloo dangaa gëm yàlla kese askar yi ma leen di jox bu leen ko weesu boo yeewoo rek waxal alhamdulilahi rabbil alamin képp ku yeewu sant sa borom te bokkaale wuloo ko ak kenn du sooy wàcc lal bi nga ni onze billahi mina sheytan rajim nga jàng faatiya benn ayatu kursi yi benn falax ak naas bi ci nekk benn bu dee teewlu nga alquran nga tëjee ko dernier verset yaasin fa subhaanallazi bi yadihi malakuutu kulli shay'in ilayhi turja'uun wala nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammad yemal yàlla foofu soo jógee takkoo naanoo diwoo raayoo dangaa gëm yàlla ànd ak wóolu ko malayka moo lay topp malayka moo lay topp kenn mënu laa kort kenn mënu laa benn problème xam ngeen ne ak li ñuy liggéey nii bu gaa yi amoon ñun bunt oto dama ni ci oto bi fu ne lañ koy yóbbu Tamba fu ne lay dem Kolda Sénégal fii ba Matam dama koy lonk ci bi yóbbu ñii ma àndal ni sama doom yi ngay gis ni xale yi ak seen yaay li ñuy liggéey ñun dindi ay xàmbale ñuy léegi ñii ngay gis ni ñëpp dañuy dugg ci réseau bi lu waral loolu te pourtant yenn saa yi dañu fay fekk ay jaanu jinne dañu fay fekk ay jaanu jinne waaye ñun yooyu dañoo romb dimension boobu parce que gars yi am na ñoom ñun fu ne mën nga gis jaan bu gis nga loolu yaa ngi dégg te ki ko def oustaz la waaw seytaane amul kër seytaane ci boppam amul kër xoolal mu ngi baa ngi noonu xooleen ko mu jeex ngeen gis Mouhamad kooku sama doom la lii 2007 la su deewoon tey jii du du ko mën woon waaye nag xale bi na sax soxna fi mu nekk nii te ki ko def mi ngi dëkk landu mu ngi jële jaan bi dëkk bu ñuy wax lelo indi ko dëkk bu ñuy wax mbiru seytaane laay wax man docteur laa ci mbiru seytaane moo tax nii laay wax voilà mun nañu incha allah dina koy gis mhm. boo ñëwoon sama kër dama woon jàng rek nga gis ko nii ak sa mhm. liñ ci yor na trop macha allah mhm. am ñoo xam soo paree ma woon la waaji nag parce que bi ko dajalee bay wax ci moom dafa profité bëgg maa kort caméraman jàppat waaw wow dina ma woon la waaji bu jeexee nga ni ma woon la waaji Mouhamad a ngi noonu jël na soxna sax fu mu nekk ni kii. macha allah mooy magu xale yi nga gis. li 2007 ah. la woon. Ah, ah. kon booy seet li moom diplôme la ci li ñuy <laughs> parce que waa ji na ma jàng mu subu génn. Ousseynou loolu la ma wax de. mu ni ma li nga defal xale ba mu mucc laa bëgg nga defal. teg ko foofu si jàng bi tey lañ ko mos a gis mu dugg ci tànk génn. te ñaan bi ko génnee mooy ñaan bi bëgg a jàng léegi ngeen di ko dégg dama koy bëral ci kaw yéen ñëpp ngeen assuré ko déglu ko. xoolal waxal waa ji ko jox la sase sase bu am ndox boobu mbuus sase mbuus bu mag loolu ay sase day jox la benn dañ ciy ñaar. xam nga ni ki àndul moom kenn. wala day jot man lay jéem a kort nag man maay waxtaan caméraman bee ko jàpp.